जो भी अमूल RFM Matin RFM Matin émission Billet yeewaa Sénégal RFM Matin 7h40 sunu gan Cheikh Cissé Wa waaleykum salam, Seydi Babacar ñu ngi lay dalal jàmm ñu ngi nuyu Georges yow yaa jiite UNACOIS Yeesal benn ci mbootaay bi ëmbi commerçant ci ci réew mi. Mm-hmm. Euh, ponk yi ñi waxtaaneek ak yow bari na dañ koy njëkkee tolluwaayu marché bi. Mm-hmm. gannaaw dogal yees fi jëloon fan yële. Mm-hmm. te kilifa yu yees yi jël ko. Euh, jëm ci wàññi euh, njëgu lenn ci nit ñi di jëfandikoo. rawatina aw ñam. ndax fañ ko dogaloon ma fa ba léegi léeg ñu déglu ni gaa yaa ngi def leen neex itam ci marché bi. auzu billaahi وبلتو كامل أخدي وإلمي وصعي وارفعي اليوم كلها يا مهين سيري بابا كارين لنوي باخ دوني شار آه، دي يغل ني ليغا خام ني موم لا سيكتير بريفي نيكا ديفال غوفرنمان بو بيس بي في نيك موي بي نيو فالو تا ديغي وون ني داني واني بري تا نيكول كي سين لوخو داني وو سيكتير بريفي دين مانيور غلوبال واخ لي ني ياكارنا ني président bi mu nommé gouvernement am ñun la ci teg waxtaan ak ñun ne lii kat demande sociale la te bëgg naa ngeen jàpp ci ñun ñëpp ñu nangu ko favorablement mu def benn commission primature commission ba yaakaar ne doxal na un mois quinze jours ndaxte wàññi lu moomul day jafe ku ci nekk def na ci lu man ak lu mënul bi ñu demee ba publier publier ko amul benn dëkk ci Sénégal boo xam ne dégg nga commerçant yi jóg contesté ne mënuñu jaay lii ñëpp la leen ci neex ak la leen naqari lépp def nañ ko ngir respecter seeni conseil seeni njiit ak it nekk ay patriote jàppale réew mi ci li nga xam ne demande sociale la bi loolu amee ñu publier ko léegi Babacar man dégguma benn dëkk bu pénurie am wala ñu yokk njëg la wala problème am fa rawatina nag eh, moment bi nga xam ne nag màggal bi dafa jot li nga xam ne moo am ci moment bii may xëy si fii di nekk ci yéen ak renseignement yi ma am amul benn dëkk Sénégal boo xam ne am na pénurie ci denrées de première nécessité yi nga xam dañ koy jëfandikoo ci Sénégal rawatina màggal Touba lépp mat na li nga xam ne moom lañ leen ci ñaan mooy ñu lu ba bañ ko yokk ndax xew wi te bañ a jaay machine primé bañ a def fraude bañ a def contrefaçon parce que li am bëkk démb mbuur rek war na leen ci yee ay centaine de millions lañ fa lakk. ci ministre de commerce de passage maa ngi koy nuyu loolu commerçant yi war nañ cee jëlee acte boo xam ne bii bu ñu leen di jaayati marchandise muy ñi nga xam ne ay industrie lañu yore en général dañuy jekk ba ba ba marchandise bi des lu mat un mois deux mois ñu profité jaay leen ko te suñu leen koy jaay détail bokkut ak demi gros bokkut ak ki nga xam ne day jaay guro détail day yeex bala muy yeex mu prix mi ñu fekk leen fa jël ko dem lakkee ko loolu nañ ci bàyyi xel mais li ma lay mën a wax daal Babacar ci li may laaj.

génn ne euh, loola wérut. ba ba ba ba mu ko waxee noonu mu ko waxee laa ko déggee mais man en général su may wax danaa sóoraale loolu ndax du la wax du ma wax mukk lu ma xamut wala lu ma tegul fenn teguñu ci lu mat quinze lu lu mat euh, cinq jours ñoom ministre de commerce recevoir na leen xamal nañ gab bañ am matul ba ministre de commerce ubbi na importation bi joxe na ay autorisation importation à ce que ñu combale gab ba fi mu toll nii fii ba màggal Tuubaa doo dégg benn suukar bu fi manqué. loolu ma Babacar man maa a ko wax te xam-xam bu wér laa la ko teg bi ma ko waxee effectivement wedd nañ ko mais su ma leen ko weddee woon bu ñu leen ministre de commerce wooyee bañ ñëwee dañuy wax ne duñ ko ubbi parce que suukar baa ngi nii waaye bañ demee wax nañ leneen lu bokkute la ñu wax ci rajo bi fi mu toll nii autorisation yi joxe nañ ko formalité moo yeex ndaxte entre douane ak ni ñu koy defee mais depuis lors lañ joxe autorisation yi ci gàpp bi nga xam ne moom la war a combler su jeexee duutuñu importer fekk la bay ñor ñu continuer la ñuy def mais suukar moom manqué ci dëkk bi gap bi nu mu toll. jàppuma ko présentement fi ma toog te bëgguma wax lu ma xamul. waaye ñoom bi leen ministre du commerce wooye xamal nañ seen bopp ne liñ yore matul ba ubbi na importation bi joxe na autorisation te ay gaa yaa ngi ci formalité pour génne suukar. incha allah te suukar bi da génne ko da yomb ndax am na xam ne Brésil la jóge mi ngi fii nekk bateau flottant di toog parce que ñiy jaay suukar xam nañ heure bu compagnie sucrière di jeexal. à ce que duñ toog bañ di leen woo bateau bi itam bu di ñëw dañuy ñëw toog di comme ni soble lay def rek bu ñu nee ëpp rek fekk ñoom ñu ngi nekk sur place moo moo moo moo gaawal mbir mi sinon bu ñu ko doon importer mën nañoo toog deux mois su ko du am mais nag mi ngi fii toog ci suñu wet autorisation rek lañ doon xaar. Hmm. soble bi de bi ñuy bàyyi fii moom wax dëgg yàlla njàmbat li bëri na bon qualité bi daana indi coow waaye njëg li itam daal. Hmm. Euh, loola itam yéen a de wala am déet. non non xam nga xam nga soble moom boo yéen a bi moom Babacar dafay xaw ma soble. Euh, du mbir mbir mu ñuy denc di ko jaay wala ngay xaar parce que day yàqu moom ñoom li ñu leen di ñaax ñu jéem a defaraat seen qualité à que ñu jàpp ci ñun ñëpp ñu bàyyi importation mooy ñu koy bay fii ñu koy bay bu ñu ko defaree Babacar qualité bi baax état Sénégal jàppale leen importation enrangé wul am réew enrangé wu ñu ñu itam dañ lay jaay la ñu am ba mu jeex. su naree am pénurie nag ñu ubbi importation pour jël soble bu yàqu nag moo fi war a jeex ndax euh, jamono maye na nga denc produit yooyu surtout parce que fañ koy jëlee ñun di ko jéggaan di ko importer ñooñu bàyyi nañ ko bu yàgg téye ko ba euh, yéen ngeen dem di ko jënd te du yàqu walaay Babacar loolu mooy loolu mooy suñu njàmbaat fu mën a ñun li fi Macky sañcoon ca jam ñaaju naan ko <laughs> marché xaw ma lan d'international mënu mënu dara parce que dafa doy premièrement euh, dañ affaire sociale buñ ko dugal affaire sociale dana ca man dara parce que bo baye sa soble andi ko fofu dugal ko fa fofu limi consommer ci courant rek day jël de épicé lepp loo nar am ci bénéfice motax dañ ko jëmo ci alab bi du bañ ko fa andi dañ ci wone a dugal affaire sociale bañ ko dugal lo xamni day indi xaliss dans son premier temps dañu war dem ba adapté wu def ko lo xamni li da fay dimbilé baykat yi état man nako te bañ koy sentu ay bénéfice waaye lañuy luyé luyee yi buñ la ko waxon montant bi da nga ne mënoo ko boole ak transport sa soble ñëw fa di ci am dara balaa càng nag duñ ko fa def loolu rek ci nekk. est-ce que tension bi nga xamante pas tension mais baisse des activités yi nga xamante ne. Mm-hmm. Euh, ñu ngi koy wax ci port autonome euh, ci port euh, Ndakaaru. Mm-hmm. am na impact ci ya nga xamante ne moom mooy produit yi nga xamante ne moom ngeen dugal ci ci marché bi. waaw bu amee ralente day am ndaxte lu tax day am mooy. normalement port bi. est-ce lu wër la ne port bi euh, yëf yi daa wàññeeku conteneur yi ngeen doon wàccee. man nag loolu dégg naa ko sànq bi ma ñu rajo bi mais général dama doon ci détail yoo xam ne maîtriser wu ko bi may ñëw dégg naa ko à partir bi ma ko déggee nii su ma génnee laa ci jéem a def ay gëstu parce que man saa su ma naree dem émission wala leneen lépp lu ma nar wax te nekkul ki man dama koy wut ba am ko dégg naa bi ñuy ñëw ñu wax ko. loolu yàgg nañ ko wax port. say naataango opérateur économique de ñoo ko doon wax. dégg naa leen maa ngi sant de passage parce que aussi ñoom dañoo toll ci exercer métier mi de temps en temps ñooñu nga xam ne ñoo fa nekk dañuy yëg sax ñun parce que dañoo nekk responsable bu noppi nekk ca biir métier ma di ko def te lu mu saf lu nekk ko ma ca ko xam donc luñ ca wax dama koy gëm dama leen ci gunge nag ci lu mën ci man wax fi ma toll nii la wax parce que xëy na ñoo ma Mm-hmm. bu ñu delluwaatee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaay jaaykat yi suukar si wax nañ ko sànq. Mm-hmm. Euh, est-ce que aussi jotul ngeen soññ leen ci seen wàllu doxalin ndax suukar si donte sax nee nga suukar si euh, du ñàkk ci magal geek ay fan yi ñu dëgmal. Mm-hmm. mais la plupart du ñi nga xamante ne ñoom ñooy consommateurs yi. bu ñu demee ci euh, boutique yi. dañ leen naan suukar amul yenn say xanaa nga doon client bi nga xamante ne client fidèle la. gis nga loolu aussi suukar amul su la ko jaaykat ba waxee daf fekk nekk ko fa mooy temps ci gannaaw. pénurie dafa amoon mais moment bi ñu toll ba ba ñu dem màggal benn jaaykat du la ko wax parce que bu la ko waxee moom day day perte ndax li am ci marché bi actuellement ëpp na ba nga xam ne boo nee suukar amul mu jënd ko feneen su yàggee yow da fay toog du xool. te mais bato bi nga wax ne ci bato bi géej géej géej la tolloogum. non non non du géej. Hmm. bato yi bato flottant lay nekk. dañu hmm. ñëw gaare di xaar autorisation yu génn commerçant yi songu leen ñi amee ay clients. suukar ñu doog a costé. waaw merci suukar nag moom frère sëñ Babacar suukar yomb parce que suukar ay milliards moo koy def donc du ñëpp a koy man dafa am ay ay ay pionniers yoo xam ne buñ ko autorisé ñooñu. musiba dëgg nag mooy loolu ay bateau suukar yu wàcc ci dëkk bi ak bonaayu suukar donc <laughs> ça c'est compliqué aussi quoi mais dana jeex yàlla c'est compliqué dana jeex ay bateau ceeb ak i bateau suukar ay bateau diwlin di wàcc dëkk bi di di faagaagal askan wi euh, dëkk bi war naa soppeeku. loolu yëpp dana jeex Babacar incha allah bu nu fi yàlla bay am bout de allah loolu yëpp danañ ko fàtte. ah lu koy lu koy dindi. lu koy dindi mooy tey nan lañu def ba nit ñi soppeeku seen li ñuy jëfandikoo. waaw nit ñi ay bato suukal ci wàcc ci dëkk. <laughs> xam xam nga nag nit ñi li ñuy jëfandikoo mënu ma ci dara waaye dinaa danaa la wax ne la li ñu war a def mooy fexe ba euh, entité yi ñuy defaree suukar bari ci réew mi te loolu dafay jafe mas nañ ci wax. Hmm. dañ koy wax rek mais dugg ci yombul. waaye nit ñi li ñuy consommer ci suukar Sénégal amul benn dëkk bu koy def comme ni ko Babacar. yéeme na yéeme na vraiment. mais mm, Babacar xam naa émission bi day gàtt te. dafa am lu am importance lu xew te nga baal ma bariwul sax loo koy def sa émission ba dama la koy ñaan mooy li li xew démb li xew démb maa ngi mastawu sénégalais yépp ki li xew démb duma mastawu journaliste yi parce que démb seen sur repos la ñoom dañ doon noppalu sant yàlla baax mel ne ma kumba bee xam naa ma ko doon def attaayam <laughs> wante sénégalais lay mastawu parce que li leen daal démb Je metti may vraiment tout le secteur privé niveau société civile wax ak gouvernement parce que les am presse Babacar même kenn warul facteur tax ñu sur sans presse parce que je vous lay wax sur la élections élection yi monsieur le président de la République il Diomaye Diakhar jour boobu Imaginez surbo boobu tay mu surne eh, sans presse wallahi asim su fekkene surbo la te be ma nga jeex minuit gouvernement maa ngi le may wax su fekkene jouru élection na sans presse te minuit lay jeex ken du le gouvernement parce que lu ne na xew le président de la République mu woo secteur privé nañ ko defoon ci Macky Sall bi ñu jàppee Sonko mi réew mi ñax euh, jax ku ne di soow ñu jàpp benn bis boo xam ne dañ koy defaat ñoom itam dem ci fii ci oblis pour def ñaxtu ñun ñëpp tiitaat ñun dañu woo Macky sàll li secteur privé dem seeti ko xamal ko na ko li li am tey indi jàmm génneel Sonko ci kaso bi wax bi naqari na ko trop keroog da ko sokke mu ne da ngeen a wax ne maa ko jàpp ñu ne ko waxuñu ne la yaa ko jàpp waaye tey ji loo bëgg ci réew mi man ko def li indi jàmm ci réew mi mooy génne ko fi mu nekk mu ne léegi dinaa ci waxtaan ak Aïssata Sall ñu jóge fa dem seeti waa kër fii ci kër góor gi Bougane Gueye daal du ma bàyyi ma fan mi may dégg fa lañ ko fekk moom mu turee ak ki ñuy wax mbóoj forom Civil ak tous les staff Sonko ñu waxtaan ak ñoom ne leen dem nañ ci Macky sàll ñaan nañ ko loo xam ne danañu ko may ak format bu mu ko defee nag dana génne sonk mais liñ leen di ñaan yéen seen bis bii ngeen jàpp ngeen bàyyi ko bañ koo def ñu nangul ñu ko immédiatement ne bis bi danañ ko fomm ñu ne leen bi ci des waxtaan leen ak xale yi ñu defal nu ko loolu moo ñëwaat ni tey kon maa ngi interpellé le président de la république mu woo secteur privé te damay li may def demande la li may wax nii demande la pour moom du loo xam ne kenn ma ko sant nag nañ ko defe woon ca bañ jàppee Sonko lañ koy defewaat ci lii presse dafa war a am dafa war a am jàmm diggam ak état incha allah rabbuna bu ñu génnee lii ma wax dañ def format ab demande ci moom ñun ñoo fa tasan man pergu Père Goudiaby Atepa Mbagnick Diop ak ak tous les membres du secteur privé ñoo fa daje woon ci Macky sàll ñaan ko loolu mu may ñu ko aujourd'hui beneen côté bi moo dikk te lii ñuy def ñun rek ñoo mën a habile de le faire amul kenn ko bokk Pastef ko mën a def tey ci politique ko boo ko ku ko mën a def ci politique ku ko ci def ñu ne da ngaa far ñun faruñu fenn kon suñu wàll jot na ñun ak ak ak ak société civile ñoom itam yar wi dal na seen kaw nañ jóg ñun dox jàmm ba yàlla indi jàmm ci lii te mbir day egg foo xam ne ay nit a ca mën a dox waaye ñaar ñi ko séq am na fu muy egg kenn mënu ci def benn pas jëm ci sa morom le président de la République nag li ma mën a waat mooy sama wax bii demande la te su ñu jógee danañ ko formaal li ñu ko formulé ci beneen bu bokkute waxu rajo mu taseeg ñun ñu wax ko li ñu xalaat ñew ci yeen ci ñi nga xamne ñoy journaliste wax leen lañu ñu xalaat ngir am ci rew lool daal fas nañ ko yene def insha allah à pat de tay suma ma sama bureau dana ko ndax te lool rek moy indi jamm ndax presse ci rew babakar man dama am kersa bo nee ci biir réew mi sax du du nekk du nekk du nekk effet bu bu bu waye bo dee diglu dans le monde entier day melni ni Sénégal dafa tass te effectivement lool dafa reuy ndax xeyna buñ xamone ni lay amee impact danañ daw kar ko man gis naa fi ba tey ñun quoi 1989 90 91 bi nga xamee ne def nañ ville morte 3 jours benn bis bu njëkk ba ba ca des lañu Abdou Diouf dafa jaaxale ba xamatul nu muy def mu wax mu wax jibookan nag fu ñu mën di nekk ci àddina woo leen noonu la kilifay def mais kilifa du du du xëccante bu bu ak njabootam dee gedd ci dara mu toog di leen seetaan naan fu jëm loolu ñu ngi ci interpellé gouvernement bi parce que Abdou Diouf bi ñu defee quoi defee ville morte nelawatul te loolu dafa garaaw moom lii ñooy am de wala lii gën a garaaw sax ndax booba temps fexe nañ ba dëkk bi jaayul bu doon ñetti fan mu metti trop. mais mais est-ce que jotul itam yéen itam euh, yéen ñi nga xamante ne yéen nekk ci privé bi muy euh, commerçant muy investisseur muy euh, homme d'affaires ngeen itam di boole yenn saa itam presse bi ci seeni yëngu-yëngu ak ci seen i waxtaan ndax dafa mel ni ñoom ñaari privé am. waaw mais mais ñun suñuy yëngu-yëngu.

loolu bu répété woon tey day gën a bari parce que ku këru presse dafa gën a bari mais ko UNACOIS duutu def grève parce que lu tax duutu def grève mooy xa astafurlah mënu ma wax loolu parce que ay syndicalistes lañ mais tant que ñi ngi wax ak ñoom ñu di ñu dégg gaw ma ne lii dina am yéen itam bu ñu leen déggoon nangul leen lii du am li bon mooy tëj sa bunt kii nga xam ne lu mett dal na ko mu bokk ci sa njaboot xëcc jëm ci yow nga tëj sa bunt mooy tax mu def lu mu a def waaye grève kenn bëggu ko benn këru këru këru presse wala koo xam ne kii da ngay jaay bëggu mais loolu mooy dernier recours mooy li nga desee moo tax bu xasee am ba noppi faw am ay bon fois yu jóg wax ci diggante bi te lii ma wax nii demee fii suba bu soobee yàlla danañ ko def incha allah. baax na euh, sëñ Cissé yow nag waa Tamba nga. gis nañ ni. état bi bu bëggee sanctionné nit rek affecté ko Tamba yéen waa Tamba gis naa ngeen koy mititlu coow li nag du du ñi koy wax de mais ñi jël dogal di fa affecté ay nit ndax mere leen ñooñ ci boppam di kilifay réew mi ñoo njëkk a xeeb waa Tamba. dëgg-dëgg. Ah. mais Babacar loolu du sanction parce que ñoom ni ko defee dañoo amul intelligence bu fekkoon ne bi man nekkoon nañ sama jëmm bu ñu leen di sanctionné du jëm Tamba Tamba maa ngi lay wax tey mooy dëkk bi nga xam ne tey moo gën a neex a administré ay nit. parce que ñoom ñoo ñu fa yóbbu cour d' bu Tamba mo dak fop cour d'appel bi nekk Dakar ñi may dégg xam nañ ne li ma wax am na ba pare muy Tamba bu ñu di àtte kuñ fa waxal dégg na tubaab ndaxte classement Mali bi ak Sénégal dafa bari ñu bari bari da xam ne dañoo Mali dëkk si dëkk Tamba Tamba sa doom bi jàng tubab bu ñëwee ci kër ga da koy day wax tubaab du am complexe fii nga xam ne mooy sa doom day jàng tubaab bu demoo ci école wax Tamba ay nit a nga nga Eh, kuñ fa yóbbu bu dee sanction da nga war a sant yàlla bi ki des mën naa benn anecdote eh, Babacar bépp hmm? bépp commissaire buñ ma buñ mas a affecté Sénégal Tamba ña fa nekkoon ku ci nekk nekk na directeur national fii loolu barke moo fa nekk ci loolu kuñ fa yóbbu ngir sanction la Omar Mal Omar Mal bi ci la bokk eh, ngiran Sadio Ndiaye ci la bokk ji Adama Dieye ci la bokk ki nga xam ne tey jii Euh, euh, commissaire Diagne ca la bokk commissaire Diagne bi ñu fa jëlee bëkk démb indi ko mu jiite élection yi ca la bokk. DG mooy kii jiite DG léegi. ñoom ca la bokk bu ma ko bu ma ko leen limal nii képp koo xam ne kii dafaa ñëwoon. ci Tamba ci moment ba nga xam ne man maa ngi la koy lim war na mat sees dafa nekkul sama bopp actuellement bi ñeeg ñi nekk directeur national ci gàttal daal Tamba am na barke. am na barke bu fa nekk <laughs> bëgg na maa wax na ci Babacar ci màggal bi bala muy jeex. waaw. Euh, café Touba gi de moom war nga ñu wax café Touba oh. nan la mën a jógee ci kilo 1000 nangam dem ci 5000 léegi. <laughs> waaw maa ngi sant bu baax Babacar loolu lu ñu war a xoolaat la mais damay sant yàlla di sant Serigne Touba ci bis bu mag bii di ndokkeel Serigne Mountakha xéwal gu mag gi ñu Serigne Touba andil Babacar Serigne Touba bi muy defar gis bu euh, mooy bu ma mooy bu naafew bi mu tàmbalee ci bisimilah yi ba agsi ci lakin onaat yi man sëriñ bi maa ngi woo ñëpp kullul ibaad yi kurib jaam maa ngi lay woo ilaa imaad yi jëme leen ci yàlla mi nga xam ne kenn la xam du naay hmm. Sëriñ Tuubaa bi mu koy woote pourtant mu ne laakin onaat yi kullul ibaad yi mënoon na mën a leen la woo jëme ci boppam mais dina la woo jëme leen ci yàlla mi nga xam ne kenn la lu dul jàng mukk ci àdduna yàlla bari yàlla bari bari u joolil bari bari sàqaay sëriñ Touba xiiwal gii mu am bi mu ko wootee ba mu ñëw ci moom néew leen kaay ñu nekk murit ku di jullit di jaam dala cee boole kon ñu ngi sant yàlla ndokk bi ni ci yàlla boole gënoon na metti Babacar ñun suñu baay sama baay man fekkoon na ci sëriñ Touba xomaag tey su may dem Touba sama oto kilomètre lay dugg dugg sama kër ñoom bi ñu dee wax xumaag lu ne dañ nañ ko ci àddina pour fekk fa Serigne Touba kon li ñu war a sant yàlla mooy kenn bañ koo damoo ci defe ne tubaa Touba yi rek lay waxal sëriñ tubaa ku def jullit di jaam lay waxal ndaxte li ma mën a waat ci yàlla mooy yéenewul murid bàyyi xaadir wala keneen ndaxte bi muy jóge ci tukki bi ba ijaaru yi illaa xaw mi saxaadata naa wal takk fi naa yow ma jamal xel niiraana su ma ñibbisee su ma ñibbisee ci réew mii ya keroog ba nga xam ne yàlla mi ngi dajale xeet yépp na leen fegal luy sawara loolu nit ku baax rek moo ko mën a def. jërëjëf maa ngi lay sant Babacar di gërëm di wax di appel le président de la république ne ko aujourd'hui dañ demande audience pour moom pour wax jàmm ci réew mi. na xam ne dana lii demande verbale la mais danañ ko yónnee écrit tey tout le secteur privé national pour wax ak moom incha allah. jërëjëf Cheikh Cissé. c'est moi merci beaucoup Yeesal jërëjëf Georges. jërëjëf euh, Soxna Naata.